salaamaaleykum salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ak sa tur ak sa sant di nuyu askan yëpp di jégalu ci dérangement bi di rafetlu aussi seen teewaay yéen ñëpp euh, tout la presse di kontaan bu baax a baax ci l'ensemble zone 7B de Grand Yoff di leen ne ñun seen seen rakk seen doom seen xarit ñu ngi leen di nuyu di leen tàllal loxo. di leen jéggalu ci wax yu ñaaw yi ñuy wax di ko teg ci deru Grand Yoff parce que boo xoolee boo xool eh, man dama ni eh, ñi nga xamante ni ñi ngi ci réseau yi eh, dafa am benn yabeel ak benn manque de respect boo xamante ni ñi ngi koy teg ci deru Grand Yoff te di ko teg ci deru zone 7B parce que yab nit mënul weesu nga toog ba sa xool sedd génnee sa ay wax créer sa ay wax nu mu la neexee ne Zarko euh, Amadou Sall dafa ñëw jox ko xaalis pour mu utal ko ay nervi biir Grand Yoff wala euh, su ma juumul am beneen journal aussi bu génnee beneen beneen page ne Zarko avoué na nee na dëgg la Amadou salle daf ko jox xaalis pour mu utal ko nervi Grand Yoff ma ni wax loolu est-ce que ñoom gëm nañu yàlla ñiy wax ñooñu est-ce que ñoom xam nañ ni euh, bés penc am na parce que dara gënul metti ngay wax loo xamante ni ay fen la. yow bi nga déggee mhm. mhm. kooku du sénégalais sax kooku gambien la du sénégalais. Mhm. waaw mais xam nga kooku yow mënoo nekk nekkoo Sénégal de un xamoo lu xew Sénégal de nga bëgg nekk extérieur. di wax lu lu lu la neex ci ci sénégalais yi di wax lu la neex ci ay nit ñoo xamante ni dañ leen a respecté dañ leen a jox cër euh, man dama jàpp genre nit yooyu jaruñu sax déglu jaruñu sax nawloo parce que du ñu ay référence parce que boo gisee seytaane yi am biir Sénégal yëpp ñi nga xamante ni ñoo nekk ci réseaux sociaux yi la te Sénégal du réseaux sociaux moo koy defar Sénégal du réseaux sociaux mooy tax jeunesse bi am liggéey surtout Grand Yoff du ma ne sax Sénégal man Sénégal li ma ci intéressé bëriwul man Grand moo ci gën a parce que ñun Grand Yoff duñu ay bandi Grand Yoff du fi dëkk Grand ay noobu la fi dëkk Grand Yoff ay nit ñu bëgg seen bopp ñoo dëkk biir Grand kon foog ñu respecté ñu foog jibi man soo gisee ma jóge Europe ñëw euh, ñëw ñëw Sénégal parce que dama nekk Europe dafa fa six ans su ma juumul euh, six ans wala sept ans laa fa def toog dégguma Grand Yoff ci dara loo xamante ni avancement wu Grand Yoff la lépp lu may dégg mooy musiba bu ñuy wanee Grand Yoff tuuxi duuna bi ñuy wane garaaf wala crime bu ñuy wane garaaf kese laa doon dégg ñun ba foofu sax wala agression wala sàcc sax ñun ñu nekk foofu daf ñuy metti sax pour ñu siggi ne ñun doomu garaaf la ñu ba fii nii dafay répercuté wu ba autorité yi wala doomu garaaf yi dëkk garaaf sax dañuy ragal taxaw ne garaaf lañ dëkk parce que lan parce que étiquette bi ñu étiqueté garaaf mooy lan garaaf ay sàcc ay bandi ay agresseur ñoo fi nekk or que c'est pas vrai jëmm jooj di wax noonu xam bugguma sax tudd turam kooku moo dàq fen kuy fen du waxkatu dëgg moom du waxkatu dëgg ñooñu ay naafeq yu bon lañu bu dëkk tàkkee rek genre di yooyu ñoo koy taal parce que moom mënul teg loxoom ci kaamil ne gis na Aline Sall ne toog jox ma xaalis ne ma utal ma ay nervi Amadou Sall ne ma utal ma ay ay ay nervi mais man nit daf may yabee yab bu toy ni bu dol ni man ko ma joge Europe xam lu nekk sama bopp jàng fa lu ne gis yoonu baax gis yoonu bon gis jaaykatu dorog ah gis ñiy tux ñiy tux dorog ah munoon ci dugg dem jaayi dorog def yor xaalis ma neex comme ni ko nit ñi amee fii nii man defuma ko ma topp ci eh, yoonu siraatal mustaqim ba jàngee Europe lu bari dinaa ñëw fii sama dëkk yàlla commencé ma tàccu ah ma naan damay ut ay nervi pour lan non daf ma metti metti yu ma man kese de képp ku dëkk Grand Yoff képp ku dëkk zone 7B daf la metti parce que xam nga xam kii lu muy wax nii adressé wul moom moom déjà li muy def nii rek mi ngi yàqal waa Pastef mu ngi leen yàqal lu bari parce que ñun man boog aw ma jotu naan damay utal mbindeef nervi pour mu xeex man mi nga xamante ni nekk naa Europe doon doon xeexal sax Sonko yaa ngi kon man naka laay ñëwee fii nit ñëw naan ma kaay utal ma nervi kaay utal ma ñuy xeex. si bien sûr mais Amadou Sall di nit ku baax di doomu président nekk ci dëgg bi di dimbali ay nit di dimbali fu nekk Guédiawaye Thiaroye Pikine Parcelles pourquoi di jàppale papam pourquoi pas warul jàppale waa Grand Yoff mais pourquoi warul jàppale waa Grand Yoff mais ñoom li muy jàppale waa Grand Yoff daf leen métti wala lan mais ñun dañoo ñëw pour avancer pour avancer Grand Yoff pour avancement wu Grand Yoff lañ soxla pour ñu jàppale jeunesse su Grand Yoff ñun ñu fii pour na jeunesse su Grand Yoff nañu génn dem rayante wala génn nañ dem génn dem xeexi ñun duñ ko man du ko wax man Grand Yoff bu may man su ma amoon ay milliards biir Grand laa koy def pour jeunesse bi pour jeunesse bi am luñ dimbalee seen ndey ak seen a jël beneen tànk bañ a jël beneen tànk jël tànk bu baax mais du ma woo jeunesse su Grand Yoff naa leen kaay ngeen dem xeexi pour lan. non jeune grand seen dama la ku ci dem kooku yow la concerné kenn yoonu kenn nekku ci ñun ay Baay Faal lañ taluñu xeex taluñu xuloo xam nga lan lañ tal naka la ñuy dawee dépense pour teral suñu yaay teral suñu pap teral suñu ay doom teral ñi nga xamante ni ñu fi dëkk jéem a dimbali suñu ay mbok yi nga xamante ni ñu ngi kaso jéem leen jàppale te kenn atteegu leen ñun c'est ça qui nu intéresse pas ay génnee jeunesse bi naan dem leen xeex Sonko bu bëggee ko xeexal na dem jëlee ay doomam ñu ñëw xeex ñun dañuy xeex xam nga lan la ñuy xeex pour teral pour siggi pour sigil Grand Yoff pour Grand Yoff nekk numéro un sur le plan mondial ñun c'est ça qui nous intéresse non ñun wu ñu ñun xam nga ban gatsa gatsa moo ñu intéressé pour le développement de Grand Yoff pour les autorités ñi nga xamante ni ñi ngi biir zone 7 be ñu gëstuwaat Grand Yoff dara intéressé wuñu yaa ngi dégg ñun loolu moo ñu intéressé koo xamante ni ñëw na ñëw na pour jàppale jeunesse su Grand Yoff Amadou Sall li muy def nii doom bu ko dewnoon da nga koy defal sa baay man sam papa bu nekkoon président dama koy geeral ba mu nekk président président yàlla moo koy tudd yaa ngi dégg Macky Sall ci nguur la jóge ñu dàq ko bay bi bi neex bi mu neexee yàlla yàlla falaat ko Sonko bu naree nekk président yàlla moo koy fal Macky du ci mën dara man duma ci mën dara yaa ngi kon ay xeex ay xuloo amul njëriñ du loolu mooy tabax dëkk du loolu mooy fal président saay Sonko nag conscientiser waat jeunesse bi ne leen nag xam nga nañu nañu ànd ci ci ci bien fait mais pas ci ay guerre. démb waxam xeex la boo man ndax. bi xeex bi xeex kooku moom la gars yi taluñu ko xeex bi yëpp lenn la xeex bi yëpp lenn la xeex bi yëpp lenn la mooy képp kuy sénégalais. nga nekk Sénégal ak foo mënti nekk bitim réew ah sa carte mooy sa xeexukaay na nga préparer sa carte ba jour urne bi nga dem votel ku la neex boobaa foofu kenn du la ne kii ngay votel wala kii que ce soit bu la neexee votel sax picc yi naaw yaa ngi comprendre mais ay xeex ci dëkk bi taal dëkk bi pour lan taal dëkk bi ban ban intérêt la ñu amal léegi lan moo tax taaluñ yeneen taaw lan moo tax taaluñ Géejawaay taaluñu ñu taaluñu Caaroy taaluñu Casamance ñu ñëw ba pare bëgg taal Grand mais grève ñun ñun ñun dañ ko taalalul kenn amul benn nervi bu am grève boo xam ne da ngay taal grève mais nañ dem taali Caaroy wala ñu dem taali Pikine wala Géejawaay ñu dóor seen yaay yi ak seen papa yi ak seen maam yi ay lacrymogène pourquoi ñu bëgg ñëw grève ñun ñu def ñu ay clochard def ñu ay bandi def ñu ay vaurien bëgg fi dóor ay ay lacrymogène bëgg rey suñu yaay bëgg rey suñu papa yi rey suñu ay maam mais lan mooy ku dee sa yaay juraat mais soo ko warul a dépasser loolu sax loolu pour ñun ñun acteurs yi la yu ñàkk fayda yooyu mais loolu pour ñun la ñun mbëri ñoo koy def ay slogan di ci di ci ut ay supporters mais moom yow nga bëgg a jiite Sénégal suba ngay taxaw naan ku dee sa yaay juraat no mais nañu marché dem ñu romb seen yoon nañu dem mais bu fi kenn di fi bu fi kenn taal bu fi kenn xëpp dara parce que ñun suñu ay yaay ñoo fi nekk suñu ay jabar ñoo fi nekk suñu ay doom ñoo fi nekk tàlloo parce que grève boo xoolee ba xool amul benn autorité bu ko jàppale musul am autorité boo xamante ni yow yaa ngi dimbali waa Grand Yoff amul te naa la xamal leen de naa la xamal leen lu tuut te bëriwul Grand Yoff Grand Yoff zone 7B de Grand Yoff laay wax sax il produit beaucoup de têtes il produit beaucoup de vedettes Dip Doundou Guiss Grand Yoff moo ko defar ci moom lay tàmbalee Cheikhou Kouyaté Grand Yoff moo ko defar yaa ngi dégg Samba Peuzzi Grand Yoff moo ko defar Formose Mendy grave moo ko defar euh, Khalifa Sall grave moo ko defar Boubacar Camara grave moo ko defar yaa ngi dégg Moussa Koné grave moo leen defar yaa ngi dégg Babacar Ndaw bu grave moo leen defar euh, ak kan euh, Matar non Pape Babacar mais yow comment dirais-je Macky Sall sax jaar na grave Ablaye Wade sax jaar na grave mais lan moo tax grave ba ba tey mu mel nii mu mel ah pourquoi xoola xoola yeneen secteur yi xoola xoola xoola géejawaay bii léegi nu mu mel actuellement mais boo fa duggee da ngay naw waa géejawaay parce que defaral nañ leen ko pavagel nañ leen de amatul dara lu ñuy jooy ay te xoola amul sax li amul sax li nga xamante ni Grand Yoff moo ko am yaa ngi comprendre Grand géejawaay pour produire wul dara Pikine produire wul dara Pikine bii parcelle parcelle kañ la juddu barki démb mais xoola tey parcelle nu mu mel ñun ñu nekk ci biir capital ba tey ñun ñuy dund mbënd problème bi mooy dañ ñu rab dañ ñu yàpp dañ respecté wuñ ñu nawloo wuñ ñu muy ba pare soxoree ñu muy autorité yi muy muy média bi muy ñëpp kenn respecté wul grand parce que yàqamte wuñ lu dul defetu grand pour ñu mën ko médiatiser te loolu kese la ñu yàqamti te loolu li li li nga xamante ni li li te kenn du ko wax te li nga xamante ni li nga li nga li ni bu ndaw day am biir Grand Yoff rek yow lan mooy Amadou Sall ñëw biir Grand Yoff jàppale jeunesse su Grand Yoff loolu mooy lan mais loolu mais loolu c'est loolu waxuma la sax c'est normal mais loolu dafay yoon yaa ngi comprendre mais loolu sax dafa rafet parce que nit musu ko fay def kenn dimbali waa Grand Yoff te dañ koy tàllal loxo mu gënaat ñëw dimbali jeunesse bi su ko mënee yaa ngi comprendre yaa ngi comprendre suñu mënee dimbali ah keneen ku ñu mënee dimbali ñun du doxuñ si politique ñëpp lañ tàllal loxo doxuñ si politique ànduñoo ak Macky Sall ànduñoo ak Sonko ñoom ñëpp ñoo xam bu la neexee nañ dem taali parcelle taali géejawaay taali caaro yi ñoom ñoo xam mais ñun du ñu mbalit lan moo tax ñu mu taawun yëpp ñoo bugg taal grève parce que grève la clochard yi dëkk grève la vaurien yi nekk léegi ñun ñun ñun doomu Grand Yoff yi ñu ne du ñu ut ay bonne volonté pour ñu ñëw jàppaleel ñu jeunesse su Grand Yoff waaw mais pour lan wala Grand Yoff ay nit dëkkuñu fi mais doomu zone 7B nañu xoolaat seen bopp bu baax doomu zone 7B les surtout les autorités de zone 7B nañ ñëw jàppale jeunesse su zone 7B parce que jeunesse bi sonn nañu wéet nañu amuñu ku leen jàppale moo tax bépp mbindeef bi fu ñëw pour jàppale leen ñoom ñëpp dañuy taxaw ñoom ñëpp dañuy taxaw ñu jàppale parce que ni ñuy jàppale yeneen dëkk yi ci àll bi mun nañ ko jàppale doomu zone 7B parce que boo xoolee taw bu tawee mbënn bi bu ñëwee inondation yi fii la ñuy nekk doo gis picc doo gis ma sàmb doo gis ma demba yaa ngi comprendre ñun ñooy dund di nga dugg di ngaccal suñu biir te Amadou Sall boo ñu munee may ay moto pompe sax pour ñu préparer nawet bi di ñëw nga indil ñu ko parce que ñeneen ñi fi nekk yeneen autorité yi nga xamante ni fii la ñu dëkk defuñu ko yaa ngi defalu ñu dara kon ñun li ñuy wax li ñuy def li ñuy def ragaluñu ko te nëbbuñu ci dara yaa ngi comprendre jeunesse su Grand Yoff képp koo xamante ni ñëw nga pour jàppale pour jàppale ñu nga jaar ci loxo Zarko la porte est ouverte di nga gis jeunesse bi te di nga leen jàppale. yaa ngi comprendre keneen ku ciy wax nag loo xamante ni keneen ku ciy xamante koo xamante ni da wax beneen wax boo xamante ni yow la concerné kooku yow la boo amee li ngay wax wala li ngay wax daf la métti nga fekk ñu biir Grand Yoff ñun ñu ngi biir Grand Yoff nga xool ndax yow caalee kuuy pur ñu dire ce que t'as à ñun loolu rek la ñuy xaar lijjante wuñu keneen koo xamante ne yaa ngi toog sa ginnaaw écran sa ginnaaw écran ngay wax lu la neex kooku yow la concerné mais ñun ñu ngi xibbi suñuy bët ñu ngi xool yaa ngi comprendre képp bépp autorité bu ñëw biir zone 7B pour jàppale la jeunesse ah on est la porte est ouverte yaa ngi comprendre boo ñëwee ñu accueillir la nga jàppale jeunesse su Grand parce que jeunesse su Grand Yoff on en a marre on booy dañuy liggéey dañuy liggéey dañuy jàppale seen bopp te kenn jàppalewu leen yaa ngi dégg autorités yi bàyyi s'il te plaît autorités yi autorités yi nga xamante ni ñu ngi dëkk ñu ngi biir zone 7B yow imagine campagne élection élection élection yi passé locales yi passé mais xoolal autorité yi chaque instant nga gis leen romb chaque instant ñu ngi romb muy Khalifa Sall muy Boubacar Camara woo muy Cheikh Bakhoum muy euh, comment dirais-je euh, Madiop Madiop le maire ñoom ñëpp da leen di gis euh, période élection yi mais bu élection jàllee soxlatuñu Grand Yoff bu élection jàllee zone 7B de Grand Yoff mbalit la mais maire Grand Yoff kenn gisatu ko kenn déggatu ko considéré wuñu sax comme comme comme koo xamante ni yow yaa ngi jiite autorité considéré wuñu sax loolu mais imaginel imaginel parcelle Guédiawaye Pikine chaque ngoon ah da ngay gis jeunesse bi dañuy ñëw di nettoyer quartier bi yëpp nettoyer Guédiawaye ba mu set nettoyer parcelle ba mu set mais Grand Yoff rek ngay dox di gis nit bu dox ba xolam sedd sànni mbalit ci suuf nit bu dox ba xolam sedd génnee bagage yi saw ci mbedd bi da ngay gis nit sax dox ba si wetu jumaa ji génnee bagage yi saw nit dox ba ci wetu église yi église bi génnee bagage am yi saw mais pour lan parce que lan parce que Grand Yoff amul propriété parce que Grand Yoff setul Grand Yoff nawloo wuñ ñu foog ñu wax ko te dee autorité Grand Yoff yi nawloo wuñ te ku ci soxla état ku ci soxla nguur Grand Yoff ngay daw ñëw mais pour lan loolu lan moo tax kon mënuñu respecté grève mais ñoom bu ñu respecté wul ñun jeunesse bi ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo dese town bi nañu respecté suñu bopp nañu respecté suñu bopp ba ñoom ñu mën ñu jox cër bi ñu war a jox man nag ay xaw ma eh, bambara boobu gambien boobu duma ko sax tontu du duma ko sax tontu parce que moom li muy wax noonu <coughs> Tunkara benn espagnol rek laa lay yóbbu tu sabes que eres una ma ñeema mama huevo de mierda a mí no me interesa tu cosa me entiendes si tienes huevo conmigo vete aquí, yo estoy aquí, tío. Estabas hablando español, no sé inglés, pero vente aquí, yo estoy aquí en África, te aquí, si tienes huevo. Concha madre, tío. Sarko balaa ngay posé question. mayal gars yi posé seen question. Sarko ñu ngi lay nuyu ñu ngi population Grand Yoff. ñu ngi lay fay gis nga si ay ay ñoo xam ne produit Grand Yoff la. ñoo xam ne tey ñu ngi dégg au niveau international. loolu bëgg naa nga xam tey seen taxawaay ci Grand Yoff lan la. taxawaay yow fu dara. ñu ngi reconnaissance ak Grand Yoff. beneen bi ci des mooy que ne lii mu la tooñ la laa tooñ. Hmm. parce que ñi fi nekk bari na mais yow la cité. Hmm. tey euh, ndax da ngaa fas yéene sa porte plainte wala da ngay bàyyi mu sedd wala lan la. non mais. kay doo xama xama xama xama boo boo toogee nga ni da koy porter plainte wala da nga koy topp après day am lu mu wax amul njëriñ yaa ngi comprendre man taluma ko sax man du ma du ma du ma pour lan ma koy porter amulu ma njëriñ waxam soo gisee may wax nii rek c'est parce que man dama dëkk Sénégal dëkk benn partie Sénégal bu ñuy wax Grand F nekk capital dakaar nekk ba pare nekk doomu dëkk bi man sama baay Ndakaaru la juddoo sama yaay juddoo Ndakaaru man ma ñëw juddoo biir ndakaaru man doomu ndakaaru laa doomu cëddeem mag yàq jëf nguy salaan ak ngot man fa laa fa samay maam jóge borom fukki penc yeeg ñaari fa la samay maam jóge kon nit su ma waxee man mus nit musu ma wax ma génn tontu ko musul am aw ma jotam sax. amoo jotam mm. ce que waaw mais man gisuma ko qu'on dise la vérité man gisuma ko man daal xam naa ne man xam naa ne ay Samba Alaar lañu. ñi nga xamante ni fii lañ dëkk star yi dëkk Grand ay Samba alaar lañu parce que ñoom ñi ñuy jàppale ñëpp mooy ay Pikine ay Guédiawaye ay Thiaroye te juddoo biir Grand yaroo biir Grand dañ man du ma daw peloton saa man su ma neexoon damay toog Europe parce que dem naa ba téye dafa juróom-ñaari at su ma neexoon dama fay toog ma teg sama tànk Sénégal mais doon doomu Grand ak eh, wax yi may dégg biir Grand moo tax ma dellusiwaat pour représenter sama gox dignement ba pare attan yen wi ba pare ragaluma ci dara amul loo xamante ni dama ko ciy arrière wala dama ko ciy tiit te gis nga bu ñu dof-dof loo bu ñu caaxaanee barki Serigne Saliou Mbacké biir na maam Thierno Nooré ni élection yii di ñëw barki Serigne Saliou ma posé nekk maire de Grand Yoff billaay wallaay taala te loolu barki Serigne Bamba amu ko déedéet population bi amu si part de responsabilité de population bi amu si part de responsabilité population bi leen rek la def mooy votel na votel nañu ko te man mii ñu ko campagnal ci laa bokkoon ba mu gañee ñun ñëpp ci lañ bokk ba mu gañe bi mu gañee talatul Grand Yoff boppam la tal boppam la fi nekkal muy meeru Grand Yoff mu mujjub talul Grand Yoff jàppalewul jeunesse bi billaay wallaay man mi man mi bi ma ñëwee ba léegi gisuma ko teguma ko bët xaw ma ci lu mu nekk doxuma ko te boo xoolee ñi fa nekk ñi nekk fii ñëpp gisuñu ko jàppale leen yaa ngi comprendre ñoom nag bu fekkente ni bëgg nañ bëgg nañu grave changé grave changé nañu gëstuwaat jeunesse bi parce que ñoom ñëpp seen wàll wéy na ñoom ñëpp seen paas seen wàll jeex na seen wàll nag bu jeexee nit nag doo ñëdd ndab sa wàll bu jeexee da ngay dem xajal ñeneen jàppale woo nit ñëpp jàppale woo kenn munoo jàppale yow yaa ngi defal sa bopp d' accord may nañ la def nga deux ans cinq ans après defaat nga cinq ans après nga dem nga bàyyi ñeneen ñun ñun ñi nga xamante ne grand fi intéressé nañu ñu ñëw liggéey xool naka la ñuy def ba liggéey suñu gox ba ba ba ba ba ñeneen ñoo xamante ne buñ duggee biir grand dinañu respecté sëñ bi grand amul sàcc amul agressé amul bandi grand amul dara grand ay noble ay ay ay noble ay nante ñoo fi dëkk ay nit ñu bëgg seen bopp. yee voilà ay Baay Faal dëgg tigi ñoo fi nekk. bu neexee yàlla dama koy dama koy def te dama te dama dama koy def dama koy def damay te te ñoom ci seen bopp xam nañ ne waa jii nii bu yoroon ay milliards def ko biir Grand Yoff parce que ñun Grand Yoff image yu Grand Yoff dàq ci àddina moo nu gën a lu ne man dara inter Sénégal dara intéressé wu ma dara man Grand Yoff laay nooyee Grand Yoff laay topp zone 7B laay topp topp ma keneen te bu ma nekkoon maire Grand Yoff barki Serigne Saliou Mbacke état bi ñëw indil ma xaw ma subvention ma ne ko téyel sa xaalis yóbbu ko ñun waa Grand ñooy cotiser ñooy defaral suñu bopp Grand Yoff soxlawuñ seen dërëm. yee adjoint la waaw ah, yaay gérer mbër yi. ñun ñëpp la metti jële yàqu